man maa ngi tudd Aminata Mbaye dëkk mbay mbay di présidente si groupement femme de mbay Mbaye ci tool bi di nekk GIE bi tuddu déggoo xalaat ñun ci GIE bi vingt deux personnes lañu vingt yi mooy jigéen deux yi mooy góor depuis deux mille quinze dañ ko sosoon ba léegi solaire bi bi nekkee si tool bi dañ daan utiliser gasoil biñ daan utiliser gasoil booba ñu ngi nekkoon ñi bokkoon ci tool bi ñëpp ñu ngi nekkoon quarante cinq personnes ay góor ak ay jigéen la ñu woon xëy na gasoil bi métti na méttiwaay goo nga xamante ni si ñun mënuñu jënd lépp liñ ci soxla ndaxte par quinze quinze jours yu nekk daan nañ ci lakk ay cent cent trois mille ci gasoil par quinze jours lañ ko daan lakk waaw te daaw daaw am cinq hectares yu mat sax mënoo ko ci woon a léegi ci laa xamanteeg bi tey mu am benn dëkk bu mu installé fii bu tudd Bayax biñ koy inauguré ma dem fa ma fa demee ci laa wax ak moom bi ma waxee moom nag bare na ay partenaires yu fi ñëw ku ñëw rek ni ma nit ñi mënuñu fay bu ñu ko lebee mënuñu ko fay après ci la bi tey daal di engagé woo daal ni comme ay jigéen la ñu te bëgg nañoo liggéey wax dëgg yàlla mu am yërmaane lool ci ñun. ci la ñu lebale solaire bi onze million et quelques léegi bi ñu ko lebalee ñu ñu koy fay ci diiru ñaari at xëy na mën na ñaari at sax wante wax dëgg yàlla bu ndoxataalu ñu ndax daaw dañoo yàqule suñu campagne baaxul léegi suñu première campagne bi ñu ko defee bi at mi ñu ko lebee suñu première campagne trois mois yi ci la ñu remboursé six millions cinquante mille ci trois mois pour lu ñu am rek ni nañ dugal suñu bor soxlawuñu woon dara suñu bopp pour fas yéene fay solaire bi rek moom suñu yëfi bopp léegi bi ñu defee loolu trois mois yi ñu dugal ci loolu beneen bi ci toppaat beneen campagne bi ci topp di daaw mu xaw a am wàcc wàcc am na luñ ci dugal wante taxul mu bëree noonu